Bamba dañ ko bëgg pere, le président Ousmane Sonko dañ que bëgg récupérer dañ que bëgg récupérer gàddu koor yi yóbbu nañ leen gàddu koor yi yóbbu nañ leen il ne reste que Ousmane Sonko sur la voiture il ne reste que Ousmane Sonko sur le véhicule intéresse que Ousmane Sonko. mu ngi ci biir otoom tëju. mu ngi ci biir otoom tëju le président waa ji nee na nga jox

快点！ jàpp nañ ko. kayaknya ini nak masuk kita Tidak